doesn't know. You're the good, you're the toujours dans votre scandale du jour de ce mardi 19 décembre 2023 suñu jógee fofu dem bëgg ñu dem seetaan ji ki nga xamante mo fi nékkon commissaire Arouna Sy suñu né commissaire Arouna Sy xel yépp day dem ci commissaire police centrale atum 2011 bi nga xamante manifestation 23 juin amon na fi jamono parti démocratique sénégalais yaakaar naa ni turam luñ ko doon dégg ci média yi bare na té japp yu bare xupaat yu bare ci mom la doon jógee Ginnaw lool nak régime bi changé Macky Sall nekk fi ki di Arouna si commissaire bi police centrale am nay cadre yu mu yëkkati ko ki di Ousmane Sonko nañu déglu ci cadre commissaire Harouna Sy le soir tu dis que c'est moi Harouna voilà donc il y' a ce qui se passe au Sénégal c'est incroyable mais c'est pas possible ce qui se passe au Sénégal Ousmane Sonko n'a rien fait à quelqu'un il n'a pas volé il n'a pas violé il n'a pas tué son problème c'est que Ousmane Sonko est une menace pour l'oligarchie du Sénégal les oléas du Sénégal. Les gens ont peur de lui parce qu'il est intègre. C'est tout. Si Ousmane Songo était un nafaq, truand, mais du fenêtre nous du nekk situation moi, je, dis la vérité. Il faut partager l'audio. Ce que je dis, je ne le cache pas. Je suis avec, avec Ousmane Sonko, je serai avec Ousmane Sonko. Maintenant, je n'insulte personne. Ce que dit le Sénégal ne m'intéresse pas. Je ne cite même pas leur nom. Je ne prononce même pas leur nom. Je me défends même de prononcer leur nom. Voilà, pour moi, c'est une abomination. Je ne prononce pas leur nom. Mais ce qu'on fait à Ousmane Sonko, mais c'est du Djaïdolé. l'avez le Sénégal laisse faire mais gis nga boy bi bu ko gars yi rey nga xam ni yàlla yàlla buur la. billahi wallahi dañu def attention. parce que li ñu teg booy bi Ousmane Sonko li ñu ko teg naqat ci Sénégalais yëpp maa lay wax loolu y' a beaucoup de Sénégalais qui sont dans la souffrance à cause de ce qu'ils font Ousmane Sonko mais c'est grave. teguñu ko fenn Adji Sarr mambay Mbaye Niang day ñàkk fayda ay toroxkat ay day ay dóorkat ay sàcckat ñoo xam ni duñu dara jël Ousmane Sonko lu nekk ñu yàq ko mais kooku dafa c'est déshonorable ils ont yàq nañu suñu justice bi kenn wóolatul benn juge kenn yu kenn wóolatul benn avocat na ngay gisee un avocat général nekkoon ci ñoom nekk gérer la cour de lancement et j'ai oublié son nom il se retourne il est il est contre eux tu vois un ministre Mary Teuw Niane ñëpp xam nañu ni c'est un saint modèle et honnête il se il quitte il se retourne contre eux mais ça veut dire li nekk lu luy nekk di dund gis nga li xew Sénégal masu au Sénégal depuis 1960 moi j'ai connu le régime de Senghor j'ai connu le régime Abdou Diouf c'était des hommes de valeur Sénégal mi ngi a à partir de 2000 avec le PDS Non, wax non. gis nga bu pet erreur bi Abdou Diouf def moy bu joxone pouvoir bi kenen ko xamni du attaque Ablaye Wade Ablaye Wade du président bu Ablaye Wade nekkoon dina ko Macky Sall dégg président Abdou waaye donc vraiment eh, Sénégal li ñu def Ousmane Sonko naqadi na Sénégalais man en tout cas naqadi na ma naqadi na fu naqadi am parce que li ñu teg Ousmane Sonko teg ko ay xarit bi nekk si la même génération mais daf ñu metti man sax amna naa sama professeur xam ñoo ma jàngal bu ñu bu ñu manqué de respect à doyen Fall te ko dóob na doyen Ibrahima Fall c'était mon professeur à l'université Dakar dama ko bëgg comme ñu bëgg sama papa Abdel Kader Boy sama professeur en droit international privé bi ko Ismaël Madior Fall que je n'ai même pas connu dajewuñu sax université du ma moroomam dajewuñu sax université di suufeel dafa ma metti parce que xam naa kan mooy Abdel Kader Abdul Kader Boy gis nga jàngkat la boo xam ne kenn xamul ban sommité la bokk man dama da je suis fier d'avoir été l'étudiant de Baye Fall et de Kader Boy ñooñu di wax. ñu leen di suufeel ñoo xam ne tekkuñu dara mais yooyu moo ñu metti man en tout cas metti na fu metti yëpp voilà boo gisee ñu taal faculté de droit man dafa metti bu Sénégal yi bay taal faculté de droit metti nañu waaw faculté de droit mooy suñu temple foofu la ñu jàngee donc man daal vraiment li ñuy def Ousmane Sonko dafa ma metti et ñuy ñuy gis ay ñoo xam ñu dara di foye suñu droit bi ay magistrat yoo xam ne fu ñu jógi di def ay erreurs judiciaires xam lan man masuma je ci au Sénégal au masuma il faut un juge en toute indépendance à prend une décision peut koy une inspection comme c'est un voleur un malfrat voilà donc vraiment vraiment je au Sénégal dans le Merci. la def Sénégal

il n'y a que des malades, des homosexuels dans le pays, des marabouts qui violent des filles. Nous des gens qui couchent avec des morts des mais malédiction euh, abomination bi Sénégal mais c'est inimaginable mais Ousmane jabaram di ko tumuranke ay viol te dara du ci dëgg mais yàlla du nelawul et bàyyi na ne bàyyi na ne yàlla Ousmane Sonko ñun yàlla lañ ko dénk on confie Ousmane Sonko à Dieu man fu ma jullee maa ngi ñaanal Ousmane Sonko ni ko complot bi ñuy complot Ousmane Sonko moom lañ doon complot ay yonent yàlla ñoom yàlla la ñuy xeexal yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom voilà yàlla na bu ma jullee asalaama yàlla nañu yàlla àtteeg ñi fitnaal Ousmane Sonko c'est ce que je à chaque fois fajar bu guddi loolu lay ñaan yàlla yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom kon kii di commissaire Arouna Sy nekkoon police centrale euh, jamonoy gouvernement Abdoulaye Wade jàppoon fi ay nit yu bare torturé du bare tiré ay lacrymogène du bare ci ay manifestation bi ñu doon xeex li nga xamante ni mooy li Abdoulaye Wade bëggoon proposé Sénégalais yi maanaam cadre brocamp maanaam loi bi ñu waroon voté foofu ci assemblée nationale ñëpp bañoon ko bëgg a forcé lii di troisième mandat taxawul woon ne Abdoulaye Wade li mu bëgg a def du dëgg Ablaye Wade li mu bëgg a def jaay doole la ba mu demee ba génn ci la taxaw tey pour défendre ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko nekkoon fi leaderu Pastef nee na deful dara li ñu koy jiñ ci Sénégal yëpp amul dara lu mu ci def ay yëfi ñàkk fayda lañ ñëw ba ko teg ci kawam muy ki nga xamante ni mooy affaire u Adji Sarr affaire u mambay Mbaye nee na yëfi ñàkk fayda la moom nekkoon na commissaire foofu ca commissaire central est-ce que mës nañ ko indil benn dossier boo xamante ni maanaam diffamation la mu ne lii yëfi ñàkk fayda la delloo ko bañ téye kooku est-ce que nit mën na fa indi benn dossier boo xamante ni présumé vol viol la ba paré mu ne lii yëfu ñàkk fayda la lu tax Arouna Sy bëgg yor kàddu yi alors que bimu fi nekké mom da doon appliquer la loi sur toute la longueur en tout cas muy lu doy war su dé dañuy dem ba Sénégal bi nga xamante tay képp ko xamante ni ci poste bi nga nekkoon wala jëlé nañ la fa sa mer ak sa vengeance mom ngay yëkkati pour diffuser certaines informations en tout cas ça n'engage que lui mais tay su taxawee né Ousmane Sonko deful dara xana bimu woté appel à l'insurrection du fii la ko fekk ñaata nit la aruna Sy téye placé len sous euh, garde à vue ba yoppi jébbal procureur ci offense à chef de l'État bi Ousmane Sonko dinaan dañuy daggate Macky Sall def ko Samuel Doe mon fan la nekkoon bi Ousmane Sonko dina gatsa gatsa Macky Sall dina ma rey mbaa ma ko la bi Ousmane Sonko taxawee téeméeri avocat téeméeri juge yu Macky Sall mënuñu maa téye mënuñu maa jàpp bés bu ma Macky Sall jàppee na xam ne ko jour boobu lay nguuram di jeex Arouna Sy fan la nekkoon kon tey su taxawee ne Ousmane Sonko deful dara en tant que un homme de loi bi fi nekkoon commissaire nekk ci biir police dirige fi lu bare jàpp fi ay doomu aadama yu bare ñaata nit yoo xamante ni moom ci procès verbal bu mu signé lañ leen dugalee ci kaso ci wàllu politique kon je crois que Arouna Sy tey su taxawee di wax lii en tout cas je me pose la ñu nekk ak yan genre nit la ñu soxla tey si Sénégal nit da nga war a ànd ak éthique ak valeur valeur dafa am solo ci nit bul toog benn instant nekkatoo ci benn place nga bëgg a ou bien défendre l'indéfendable Ousmane Sonko de newuma leen def na waaye deful waaye lu mu fi def mi ngi ne gàññ ci bëtu askan bi ñëpp di ko seetaan te tey dafa bokk ci benn corps boo xamante ni corps boobu moo doonoon corps lan corps force de défense et de sécurité Ousmane Sonko fii la taxaw saaga seen day ñoom ñëpp Ousmane Sonko ñaata magistrat la fi saaga ñaata nit la fi tuumal de mu doonoon loo xamante ne fii ci scandale di jour lañ leen ko indiloon. jadi jadi jangan tahu You're the